ci at bi ñu doon amal ab liggéey ngir jàngat naka la ñuy def ba dooleel toppatoo bi war ci xale yi dund ak jàngoroy sida loolu nag waral bi le jotaay waa kër docteur yi doon tënk rek jéego ya ñu jot a matal ci projet bi ñeel wàllum xeex ak faj xale yi yore sida. projet bi daf ñu dimbali ba nga xam ne lépp loo xam ne ki nga xam ne dafay faj. daf ko war a xam mooy li ñuy wax naa référentiel de formation mooy lépp loo xam ne pour former nit ki la pour tënk pour tàggat ko ba mu gën a xam lan mooy jàngoroy VIH ba mu gën a xam naka la ñuy fajee jàngoroy VIH bu ko xale amee. ab jàngat wane nit problème mu dépistage yu xale yi nekk na ab jafe-jafe ngir wéyaloon bi le projet bu ñu sukkandikoo ci docteur Diop di ki jiite la division de lutte contre sida. waa dañuy wax problème dépistage moom mooy ñu gis xale yi nga xam ne dañu dund ak doomu jàngoro bi dañu gis ne Sénégal euh, bu ñu waxee ci téeméer bu nekk ñi ñi ñu gisagu mataguñu juróom fukk mooy genn wàll gi gisuñu leen. te suñu teelee gis xale bi mu ne am na ko ñu teel ko faj da koy dimbali ba nga xam ne dana màgg kon moromam yëpp dund ba ba ba ay wéjoon kon moromam yëpp ñu ko ñëpp di ñaanee. junni ak téeméeri xale nag jot nañ leen saytu. faj leen ci diiru projet bi. bu ñu sukkandikoo ci docteur bi. projet bi jël na ay en charge lu lu tollook junni ak juróomi téeméeru xale yoo xam ne ñu ngi woon ci juróom-ñeenti région ci Sénégal noonu la ñu war a nangoo ñuy xool VIH ci deretu xale projet bi ñu dippee emprise 3 ñu door ko ci atum 2020 ci ndigalu jëwriñ bu ñu dénk wàllum faj mi ngir mën a yeesal toppatoo bi waare ci gone yuy dund ak jàngoroy sida surtout gune yu nekk ci dëkku kaw yi waa kër docteur yi nag di ñaax rekk waajur yi ngir ñuy mën di lëkkaloo ak docteur yi ndax ñu am toppatoo bi gën ci xale yi ndaxte rekk VIH sida ab jàngoro la bu ñu mën a faj